bàyyi xel itam ci mboolem kuy dégg sunu kàddu ci réew mi ak fu mu mën a doon du géejawaay rek mën naa ni Sénégal gépp fépp fu waay nekk ñu xam ni balaa dara wér gi yaram mooy jiitu ndax ku wérut doo tale jaamu yàlla ku wérut doo tale liggéey ku wérut doo tal dara bala ngaa tal dara da ngay wér ba noppi doola tal lépp kon wér gi yaram yàlla na ko yàlla boole defal. di dox lu ñu rafetlu la lu baax la yàlla na ci yàlla boole jàppale képp koo xam ne que itam ñëw nañu fi yow xamal la ni la loolu moo leen tax a jóg te jamono bii nu toll euh, bu nawet xasee tàmbali rek léegi siburu day daal di tàmbali te siburoot bokk na ci ni ñu ko waxee yoo yooyu nga xam ne ñoo yàlla danoo boole ak ñoom. ñu di leen tudde ay baraaxis lu mel ne yoo lu mel ne matt lu mel ne nangam nangam yooyu yëpp yàlla boole ko ak doomu aadama wante itam lee la am ci ñoo xam ne dañuy sos feebar mbaa ñu di ko yokk li nga xam ne bokk na ci lu koy musle loolu ñuy tuddee sànke nga di ko muuroo di ko di ko defal gone yi di ko defal njaboot gépp ndax yàlla boole di ci musal kon noo ngi leen di dalal noo ngi leen di sant noo ngi xaar sànke yi. di ko wax waa Gunaas yëpp ak waa Géejuwaay yëpp.

lolu moy message bi nga xamante ne moom laa ko doon wax ni ñëpp ñu téral gan ñi bu baaxa baax déglu leen répondre question yi normalement te lu ci sanké yi ñun délégué yi aussi ñu fas yéene dugg ci kër yi di xol ñi nga xamante ne jox leen leen sànke ndax dinañ ko utiliser comme ni ñu ko waré lolu la amul luma ma doon wax ngeen baal salaam. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous amener l'information. En fait, euh, ces jours à venir, des personnes vont passer dans vos différents foyers pour un recensement par rapport à la campagne euh, de lutte contre le paludisme. Vous êtes invités à leur ouvrir grandes vos portes et à leur donner les informations qu'ils sont venus chercher. Le paludisme est là, c'est une réalité. Alors euh, faisons tout pour qu'ensemble nous puissions mettre le paludisme hors de portée. Alors euh, nous vous invitons donc à ouvrir grandes vos portes

nga neew wànt ci woon tey kaaba nga wànt ci woon kare ñaa ko pemb ko koñ ci parce que nga barum nga ko ko wal eh, pu maak pu maak pon tu pema ci pu kamandal bu pu jena ndone na kaw tenda wi me bu ko ka tu di o barum di karum o barum ruma tu barakam de ka pu maak pu ti japa bandi ni tabayan ja sibru fi sibru fo c'est-à-dire pu maak alors pamak bontu bo nyang kamandal pu le je so ko le toend bu ko wol ndi ngi tenda nyandi ka lokku dara ka to ko wol yo ga ci bu ko pofi wan me ba nyama ci ki tigato e ka be ci tigato bu ko ko wol lo tenda ko tandi ka bu ko ko protege ro par nyandi ka mak donc ka euh, jend baran de jej bu ko ri to mak ka to ke wa nek rek de ci ko mbu ko koy bu klen